kooru ren gi jar na seeta action. sa waay gaañ bi tar na de. waaw. sànq ba léegi gaañ yi ngi jàpp rek. laa ah. ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal. ah salaamaaleykum maaleykum salaam. incha góor yàlla. xaaral ma taaj ko nii faal bala. maa ngi suyee nag maa ngi ziar baax sama gars yi na ngeen def. bàyyi na ci jàmm faal lii lii doo la de. saa yi danaa leen jéem de dox leen ta bàyyi kii. bàyyi faal. waaw waaw damaa bëgg ngeen déglu ma wax ak man waaw li dama ne lii war may Touba dañ koy tere ak it yéen ngi ci koor waxtu dog wi ñëpp nekk seen i kër di waajal ndog ngeen nekk fii di dox doxal seen ñàkk fay rëy eh, faalew lii lii na ci war may tere dama ne Fall Fall wuy ma waa léegi ku moom lii kii nañ nañ bàyyi gars yi moom li bi tas li waa jëlal téléphone bi jëlal sa téléphone gars yi yéen da war a bàyyi lii suñu waxee ngeen jël téléphone am ma saa lii lii métti na quoi eh, Fall Fall lan nga a xam ñun ñoo la gën a dooni Baye Fall fop ah, non non Baye Fall yow mooy sama sëriñ man maa la gën a doon Fall yow sëriñ bi ngeen bee ko ci mbedd bi eh? wa wa Fall aboye eh? ah, yaram tàng na moom Baye Fall de waaye bii moom dama koy jaay rek def ko addiyee xaaram dugal ko ci boolu maa jaal bi sax waaye def waaye murid waaw Fall naa leen fi rombaat rek ngeen naan da ngeen ni di doxool ma faal la ilaha illallah salaamaaleykum Baye Fall Fall ah ñu ngi ziar baax de bàyyi si jàmm baax sorry ah hee dafa gën a kawe nag Fall Fall dafa gën a kawe de dafa gën nak kawe de maa ngi fasaale ci dolli bi bu baax nag dee leen ñu si fasal gis na taxawaay nak? kay toog ah Fall maa ngi tuub de waaw ma wàcce parce que daanaka boo nekkee ci Touba. waaw Baye Fall yi yëpp bu ñu doon defee nii Touba ca kanam la jëm. Hmm. yaa ngi rek la ndax de Cheikh Abdou Lahad la fi eh, toog a wax. man fi fi nii damaa wax a wax wax bu sonn. waaye gis naa sa liggéey. dëgg na jàppal rek. waaye bàyyi naa la xamal leen. Hmm. ñun sëriñ bi dafa yëkkati lii jox ñu ko. Hmm. muy ndigal te Baye Fall ndigal dong la am. te ndigal nag. bala bala bala njariña am ndigal dafa am li ndigal suñu bakkan bi lañ ci tek li sëriñ bi bëgg day am wala mom suñu bakkan yi bëgg ñu tek bilee wala tout tànk yi maa leen romb ñuy lido dañoo dëgër bop dama sé wax waron nañu taxaw nyoman hmm. jëflante ak ñom man ko gis na lépp nga def bilee wala xool dama ci kontaan parce que dama la nga ayé ay na la ko ba son dama wax wax wax fi ni bokku ñu niroon waaye daf ñu baax la lu baax la <laughs> <laughs> ci wala <laughs> ah kii de moom duñ tàggoog nelaw de nii tàqaleeg moom. kese ndigal rek. waaw mu ndigal te yaakaar na si liggéey bii jàppal taw bul ci kenn jëlee. incha nii la ko ba bi bëggee. Baye dafa xaw a kii sax waajal waxtu wi jot na ndogu yeeg yooyu mhm. damaa bëgg egg daara ja. waaw boobu ba léegi maa ngi woon ci waar wi. waaw maa yóbbu ndogu ya tourné rek ma ne xaaral ma jaaraale ko ti far ma seen fi xéewal gi ak sa ak sa ko yaatal waay dugal ko ci ndigal <laughs> ndeysaan waaye Fall yow ku baax nga dinaa fi ñëwaat ñu gën a yaatal barke maam Cheikh Rafa magal wér baay bu baay dé ah. yow da ngaa war a baax dégg naa ni nga def nii ne xool dama kontaan jërëjëf billahi wallahi jërëjëf ci kanam waaw jeex rek Fall waaw ak sa jaajëf man tax xam naa sax daal yi sax wala ko kii <laughs> waaw ndeysaan ah. te baax loolu war na la ilaha illallah léegi ndox jëf sax xama dugg